li ma bëgg a leeral ci lu jëm ci engrais avant ma ciy dugg sax damay am leneen lu ma indi pour ñu gën a comprendre li ma bëgg a wax le président de la république président Macky Sall bi mu ñëwee ci réew mi ak léegi li may wax ni nag défilé boo xam ni ku mu neex génnal wala nga wax wala nga daje wala bu la neexee sax ñu dajee ci maag ci plateau ñu toog ñu def ci débat bi mu ñëwee ci réew mi ba léegi amul lenn loo xam ni bi mu ñëwee léegi yokku na yokk yok gu tax ñuy wax wala yok gu tax ñu wara genn te jëmu ci indi ay safara lu ham ni bu dee loo xam ci national bi la mu man ci dara mi ngi ci indi ay safara bu dee loo international la lu melni ni engrais bi nga may tuddal léegi jafe-jafe yi mu am international du ci bir réew mi fa ñuy défaré engrais ñu am ay jafe-jafe fa engrais di li ci ëpp di ñëw fi mo xam engrais la mo xam farine la bi ñuy défaré mburu moo xam essence la bii nga dégg ñu doon wax naan fan yi passé manqué woon na fa mu jugee ñoo am guerre ñenn ñi ne ci ay jafe-jafe affaire bi kale mu yokk au niveau international loolu du ministre bi du directeur bi du président de la république mais ci àdduna bi yëpp la yokk waaye foofu dafa am lu mat a préciser mooy bu ngeen demee ci yeneen réew yu bari man dem naa ci réew yu bari baykat ya fa ne ñooy jëndal seen bopp engrais ñooy jënd seen xaalis engrais kenn du leen defal dara bu engrais bi jaroon cinquante mille sax dañuy génne seen cinquante mille dem jënd ko waaye ay la yëwen fii ci Sénégal le président de la république dafa jël ay matukaayam ak mboolem ñi mu dénk liggéey bi nii li xew ci yenn ci yeneen réew yi bëgguma mu xew fii mooy bàyyi béykat bi muy demal boppam rek di defal lépp boppam di sonn bu dee ci wàllum semence yi bu dee ci wàllum engrais bu dee ci wàllum machine yi lépp lu mu ci mën a doon béykat bee ko waroon a jël 100 pour cent dem defal ko boppam dem liggéey am xaalisam waaye du ko seetaan lépp lu ci jar ñaar fukk man état maay indi fukk baykat bi indi fukk wala man état sax ma indi fukk ak ñaar baykat bi indi juróom-ñett may 40 loolu exemple la bu may joxe rek ci mboolem xeetu prix yëpp mais loolu effort la bu rëy boo xam ne dañu ko war a saluer tey bu dee wax naan nangam doxul nangam doxul nangam manqué na wala nangam lii mais loolu war nañ koy leeral parce que am na ay sénégalais yu bari yoo xam ne bu déggee naan semence bi daa yokk. wala semence bi daa wàññeeku wala engrais bi daa yokk wala daa wàññeeku wala machine yi daa seer dañuy jàpp ni baykat bi moom seul mooy dem di jël xaalisam di jënd loolu fekk alors que no bu dee bu dee luy jar vingt mille la état bi day jël diis jox la dix waaw anamu ak tey bu fekkoon état bi jëlul woon dix nga jël dix lépp nga war ko gàddul sa bopp konoon dina gën a compliqué mais nag mi ngi def ay effort di def kéem kattanam ci liggéey bi nga xam ne moom la ñu ko dénk. nit ku jàmbaare la ko mën a liggéey tey dama jàpp man ni ku ñu war a ku ñu war a dooleel la ku ñu war a sant la aussi ci liggéey bi nga xam ne mi ngi koy def ndax yaatal na ko ba ba waxuma ñëpp nag parce que loolu yàlla mi ko mën sa defu ko waaye ñu bari gis ci seen bopp kon nañu xam ni jafe-jafe yi am ci wàllu mbay mi ay la yéwén état bi mu ngi ci def kéem kàttanam ne xam na ne président la république bi mu ñëwee léegi ñaata milliards la fi baal baykat yi bi mu nee cëpp 13 baal fii li may wax xam nga ko ñuy deetawaay ñu indi ay machines yu doy ñuy deetawaay ñu ni euh, gunóor yi jaar nañ fi mbas mi jaar nañ fi lekk nañ affaire yi mu génn 2 milliards ni nañ leen ko séddale et pourtant loolu lépp du force loolu du force da koy def ci coobareem ak ci yërmandeem ak bëgg a jàppale baykat yi kon képp ku taxaw naan la jafe-jafe amul li muy wax amul jafe-jafe am na ci mbay mi waaye état baa ngi def

lii kat naqari na ma am na ku ne am nga sañ-sañ dañ koy maye gratuit waaye nañu koy mayee sax neexuma ku ne am nga ci droit waaye nag nañu saluer effort yi nga xam ne état bi mi ngi koy def te ñëpp xam aussi ni état bi seetaanul ndax lépp lu fi ab baykat di def rek bàyyiwu ko daa ñëw ni ko defal xaaj ma def xaaj defal fukk ma def fukk wala sax defal juróom-ñett ma def fukk ak ñaar